ayca internet yi ñi ngi leen di nuyu di am mbégte xam ngeen ñi ngi Grand Théâtre National de Dakar mbokk yi le 31 décembre bis la bun doon waaj boo xam ne macha allah euh, Balde Faramaren dégg ngeen ko ci réseau sociaux yi macha allah yéen a ngi koy gis ngeen gis Faramaren bi tournée bu mu nekkoon gambi la après Gambie dégg ngeen ko mbuur après mbuur dégg ngeen ko Thiès après Thiès Tamba Tamba Malikaay ñëw nu démb ci guddi tey nag ñi ngi 31 décembre war nekk fii ci Grand Théâtre National de Dakar Modou Amar délégué ngeen gis ko mi ngi woon ci convent bi partout fu Faramareen bi dem mu ànd ak moom Amar. waaw ci loone maa ngi sant sëñ Tuubaa moo na mi nam naa leen. maa la ci ne. nice. yéen doxal. waaw ñu ngi ñëw ngeen ci seen bis bi. <laughs> waaw ñëw nañ ci xam ngeen ne bis bi rek ngeen am <laughs> te moo leen ñor kon ñëw ngeen ci ah. di siyaar euh, Dakar live. Ah? Uh-huh. di la bëggee yow tamit. Uh-huh. Mouride Charif bi. waaw gis nga tournée yi de moom dem nañ Gambie trois jours. def presque def nañ fa cinq jours hmm. jóge fa ñëw Dakar tëgg ko tëgg fi benn concert hmm. doo ko dem euh, Mbour hmm. bi jógee Mbour gis na ñu ngi woon Thiès biñ jógee Thiès ñu ngi woon Tamba waroon nañoo tëgg démb dëkk buñ naan euh, Ziguinchor o defee waay Kaffrine mais mujjul antu parce que Koungheul mujjul antu parce que dafa xawoon xat temps bi du ko am ñu demoon dëkk buñ naan Mali kaay boo dee xool diggante soo duggee ci frontière Mali bi diggante fi frontière bi kaay rek da ngay xool diggante fii at saint liwi nga rombaat yeneen Saint-Louis. waaw kon foofu sori na. fii ba Dakar ba Fouta. voilà voilà ngi noonu Dakar ba Fouta sori na donc kon lu mel noonu. bu ko nit demee defi ci dëkkam boo xam ne. Mhm. amoon na benn affaire bu fi amoon Paris ñu naan gars yi Mali lañ doon wax Mali par yàlla dogal ci biir décembre bi ñu dem Mali gars yi naan Mali <laughs> kon Mali gi leer na. non non no non Mali dañ koo tëgg tëgg ko tëgg sax ndeysaan dafay seetaan waali sopp di soppe waali rek malien bi gis ngeen ko yow gis nga ko demoon nga topp nga waali fu ne di ko baax nag moom it le milliardaire bi nekk Mali xam ne kii moo dàqawee ci Afrique kii moo dàqawee Sénégal mu woo ko jox ko ay koppar ne ko kaay tëggal ma voilà mais ci li ñuy wax euh, tournée bi moom ni mu mel ku nekk gis na ko depuis Gambia mhm. mais ci li ñuy wax mooy 31 décembre bi gisu nañ euh, logistique bi nu fi gis mhm. gis matériel gi nu fi gis gis programme bi vraiment ñu xam ne nag lii ah programme la boo xam ne du ay caaxaan ay caaxaan dem waaw xam nga Waly moom sawaay yéen xam ngeen ne moom dafa jox cër jeunesse su Sénégal jox cër ndaw ñi ba nga xam ne bu 31 décembre jotee comme yeneen artistes yi ni ñu koy defee seen dëkk moom da koy bëgg def dëkkam mhm. boo ko doon boo ko doon fay milliard pour yóbbu ko beneen dëkk pour mu tëgg fa 31 décembre bi du def parce que sénégalais yi la koy jox fii ci ndakaaru ci esplanade bu grand théâtre yéen gisal ngeen ko seen bopp te après di ngeen ko gisaat jàpp naan ne ñi nga xam ne ñoo wàllu logistique bi doxal nañ ko ñi nga xam ne ñoo yor wàllum baas yaat la cay dem ak saisi ku nekk la nga yor yaa ngi koy doxal jaaykatu ticket yi gis nga ko doxal nañ ko ba jàpp naan ticket yi sax boo dafa mel ne lu xaw a jeex soxna mi nga xam ne mooy léppi waale di première dame la ca war di ko def ci événement mi moom moo koy yor en mais ndax événement waal yëpp moom moo koy gérer la ca war lépp def na ko ànd ak équipe comme ñi mu ko daan àndal liggéey bi jaar ci yoon mhm. waaw ku xool lii xam ne du ay million du ay weccat du ay weccat daal soo ma da ko doon xaymaal tey xel comme base ma gàtta la trente millions boo leen ko fayu duñ déplacé wu ci événement bu toll nii parce que am na ay contrat yu bëri yoo xam ne ñoo ngi koy am di ko doxal léegi nag li ma bëgg mooy mhm. ñu dem ci biir ñu xool logistique bi xool dama euh, bëgg bala ñoo dem waaw waaw man kenn laay sant ci lu mel nii. mooy kan PDG Doro Gueye. ah ok xippil xool kooku suñu grand la borom xippil xool. parce que li mu def moom rek ndeysaan moo tax nit bu la bu la baayoo da koy doomoo. ndax Doro Gueye ku ne xam ne waale da koo baayoo mu doomoo ko ba mu jeex tàkk nag mu am mbégte ci bis bii su ma jubul ñëw na fi ci suba ba ñaan fi ba lu ay kaamil. ndax Doro Gueye nag yéen a koy siineenu daa am daara alxuraan boo xam ne. heure bu dañ koy ñaanal moom dañ koy wàcceel kaamil ndax la mu fay na ay kaamil ñëw fi moom ci boppam dox fi wërëb visite li muy ñaan fi doog a dem yamul ci loolu mu jënd 500 bologu ticket 500 bolog non bolog waxuma la ticket de paquet bi xam nga 100 lay def muy 1 million est-ce que comprends nga mu jënd 500 bolog 500 bolog di 5 millions yu 10 000 10 000 laa la de jëndaat yow vingt mille vingt mille trois blocs non cinq blocs laa la wax cinq blocs la jënd yu un million un million jëndaat yeneen trois blocs yu vingt mille vingt mille yi loolu ñaata muy six plus cinq égale onze non non non non loolu loolu la lay jox huit million la lay jox waaw cinq boo ci tegee trois ñaata la lay jox mu jënd ko ay blocs te de te loolu wute naat li nga xam ne digganteem la at doomam at ñam war a jàppale ci digganteem at doomam mu mu mu mu def ran nga mu xam mu mu ni comme ku mel ne laay la chef mu ne ko yow nit ñi xamee nan la adwaali demal nga jox sa ay nit ku mel ne keneen ak keneen ak keneen kenn ku nekk mu jox la sa wàccuwaay ba man mii sax damaa jëndoon cent ticket di ko maye teewut moom daf maa woo joxaan ma roof ma ay pexe ay ticket ma dem ma dem ma dem ma dem joxe joxe ko joxe maye naa tey lu toll trois cent ticket mais joxe naa tey joxe naa tey lu ñu toll 300 tickets. mais nam naa la. eh mais mon ami. mais Kalika yi mais Californie. barke Sëñ Saliou gis mu saapel. kañ nga moo kañ la. xoolal émission la émission yi. non pas émission kañ la woon loolu. ah eh, damay tudd Doro Gueye ah, nga yegg damay damay tudd Doro da ngay nelaw quoi. Doro li mu jëf ci bis bi ah. yow xam nga ni PDG Doro Gueye. ba subu Waly Ballago Seck du si des ginnaaw. waaw xam nga ni Doro Gueye buñ ko nee kan nga gën a bëgg. Mhm. mu ne la Waly Ballago Seck nga ne Waly kan nga gën a bëgg mu ne la maa ngi si Doro Gueye léegi léegi laa tàggoog ñoom xam nga ni Waly bu xew la it Kaliphone foog mu def teew ndax Waly yaa ma gën a xam si social lay dox si taxaw askan wi lay dox donc lépp lu muy gañewaat fii rek day delluwaat si askan wi kon kooku dafa neex a jàppale boo gisee sunu présence parce que Waly Baye Fall la. waaw moo nu jaaxal c'est parce que kàll yi gëj nañ ko gis. mu génn foo ne waaw maa ngi fii wax dëgg fa yàlla maa ngi sama ruq. ñu bëri ñu ngi may laaj kàlli foo réer kàlli foo réer. dama toog rek xam nga parfois dafa baax nga dugg sa ruq tuuti waaw. waaw waaw kali day fu mu war a signaler. voilà non xam nga politique bi dañ see sonn sonn sonn ba benn moment liñ doon xeex yëpp mën naa ni liñ doon xeex yëpp mën naa ni que euh, matale na. Ah. mooy defoon la ba sunu waa ji bu mu bokk. te yaakaar naa ni ba fii du dootul bokk kon jarul ñuy sonn quoi. investiture am bu non dañoo ne woon dañu koy investir ak APES. mais gis nga mujj am comprendre ma Kali. waaw Kali nañ wax ci bisub tey waaw waaw mooy dëgg nag. ne tey gars yi dañu maanaam man nag xam nga politique bi xam nga gars yi dañuy daggali. après ngeen wax ci politique fi mu toll nii non non ma après ñu ci wax. mais nañu nekk ci grand théâtre bi ñi nga xam ne mooy sunuy sunu son son excellence monsieur ministre Omaro ma ngi nii. door a jëf ji mu jëf ci bis bi. ah roof na may pexe ngi lay nuyu. maa nu lay nuyu bàyyi door ak gay def nu roof pexe ba ñu yëg dara bis bi lim ci def kenn def ko ci. dëgg la jàpp na ci zaahir jàpp na ci baatin. léegi la fi jóge léegi la jóge doora. ñëw xool dañ ne réglage yi ba gars yi di waaj a mu yeewee ko. mënoon naa yem ci jënd ay billets jàppale ñu. Mhm. waaye yemu ca. Mhm. lim may kii ci ay billets. ëpp na 300 billets. man jëndal na ma man jëndal na ma quatre table yu dix personnes mhm. yaa ngi may dégg sagal nanu siggil nanu teral nanu mhm. yii ma la wax nag mooy yim sikk ñun njaboot gi mhm. wax ma la yim sikk waal de non non non non yim sikk waal loolu beneen level la jëme ci bis bi mais dama ne ñun doom yi ñun doom yi ndaw yi ñun doom yi ndaw yi ministre yi député yi ñun lim sikk ñun ku ci nekk teral na la nga teral say mbokk teral sa njaboot te dama ne nag ndaw moo roof billet mu rool la fexe. mu ñëw feexal xolam. waaw. dellu ci. xaaral ma ñëw xaaral ma ñëw la moom feexagut. dégg nga ni ko son excellence Omaro waxee. Ah, monsieur le ministre nee na ndaw loo roof. waaw mu féexal xolam kon jeex na donc loolu daal li nga xam ne mën woon lu ma bañ a bañ a ban mu nekkul lu ma bañ a bañ a wax parce que le PDG Doro Gueye wax dëgg yàlla gis ngeen nim ñu taxawoo at nim ñu jàppalee donc bëgg waale nag sincère ci nag te boo bëggee waale rek saan moom daf lay bëgg waaye nag ku ne nam ku ne na nga def nam la dafa tax koo naan xaw ma nu ma koy def nam la nam la dafa kon nag mu ngi noonu nag kon ginnaaw xam na ne doomam moo xewle mu ñëw fi def fi ay dog def fi ay ñaan yàlla ko yàlla sàmm yàlla na ko yàlla aar yàlla ko yàlla bay bàyyi at waal yi bàyyi ay xarit waal yi nga xam ne seq naat ak ñoom jàmm. ñu dem ci biir xool la ci biir xool li nga xam ne mooy euh, waaw ak ak li gars président commencé balance. ñu dem waaw. alaaji Ndeye Fatou leen ko waxee ah gis ngeen yéen a ngi ci biir ñi ngi préparé pour balance délégué ah dañuy ñëw jëlal leen li nga xam ne mooy balance bi. xam ngeen Mariasin macha allah gis ngeen nag euh, li ngeen fi gis nii lépp du du du du du ay caaxaan. ah waaw waaw lii moom lii moom c'est c'est c'est c'est waaw mbay waaw. naa ngi nii kii bi mbay. waaw affaire dafa leer. waaw yéen yàgg ngeen dem ay concert gis ngeen façon concert bu ne. Mm-hmm. bu ngeen gisee investissement bi ngeen xam ne lii du ndaw. bu ngeen gisee scène bi ngeen xam ne lii du ndaw. bu ngeen gisee siège VIP yi nga xam ne mooy 20 ñi fi war a toog dinañ toog fu nooy boo gisee géttu béy bi liñ naan entrée di mille ñi fi war a fecc dinañ fecc te duñ taq kon xam ngeen ne lii investissement la. te it ñu ngi gërëm képp képp ku nekk ci équipe bi di liggéey bàyyiwuñu kenn Amady Badiane Baye Zal surtout Baye Zal surtout euh, logistique bi bàyyiwuñu kenn ndax ñi ngi liggéey faat ki ne comprendre nga bu ma limee may juum. ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ndax ñun nekkuñu fi woon bu doon ñu noon ñun.